micro test microphone. parce que sëñ Babacar si loolu la ñuy ñaan mu daan waaye li ñu ko war a pareel moom pare nañ ko ba pare waaw. papa bëri ngeen ko ba pare ñu gis ne Lac de Guiers VIP la wala koo xamante ne dafa yokk poids am ci combat bi yokku doole ji est-ce que dana neex a yëngal. waaw xam nga robot moo dul yëngu. waaye comme nit la du robot dina yëngu. dina yëngu waaw. mais 100 pour cent bi ma gis géejewaay euh, ñu nekk ci ginnaaw Lac de Guiers. ñi demoon sax booloo nañu ñëw seen ginnaaw bii nii. ñu gis ni 100 euh, pour cent Pikine bi. gis gisuñ ci gis gisuñ ci euh, Ama Baldé donte ni gisuñu ñu nekk ci ginnaaw. yaakaar ne Ama Baldé di nga ko gis léegi. Ah. am naa ci yaakaar. loolu moom am naa ci yaakaar. Lac de ñu ne défenseur la Boy Niang ñu ne day xaar nga nga song ko mu exploité ko est-ce que bi du nul. waa xam nga combat bu nekk ak li mu laaj ñun ay technicien la ñu ci technique la ñuy wax. combat moom bu ñëwee rek bu ñu ñëwee ba ci géew bi. xam nañu li mu laaj. cest nag doo dem ger di wax say arme ndax mën nañ cee jot. mais jàpp nga ne du niil. niil du ci am. Ah. non du combat buy niil. bul xalaat sax loolu. li booy ñaa liggéey doy na sa dal na sa dal na sama xel bu baax a baax a baax a baax a baax loolu moom bu daloon sunu xel du du ma sax ñëw. kon loo tontu Lac de Guiers 2 wax ne dafay corriger booy ñaar duma ko. waa xam nga li wóor mooy nit ki balaa nga koy corriger da xam fi ngay jaar pour corriger ko waaye boo xamul fi ngay jaar pour corriger ko du dul ci wax. day daal di xaw a doy waar day daal di xaw a doy waar waaye li wër sa leer mooy la ma daan def day ba ma doon champion d'Afrique fii ci Sénégal doon fi champion di senegal def fi li ma fi def ci réew mi yaakaar naa ne su ma taxawee ci sama ginnaaw doom su ma wax ak moom dina dégg li ma ko wax muy Ama Sène di Ama Baldé di Boy Niang mi ak xale topp seen ginnaaw kon incha allahu taala yaakaar naa ni Euh, balaa bu ñu àggee ba. dana nu ja daja ca stade booba boobaa na ngeen ma dégg micro yi. ma wax ak yéen boobu Eumeu Sène dafa nekk roi des arènes war a bëre ak moo xam ne moo ko daanoon. te kooku ki ko daanoon Eumeu Sène dafa daan Balla Gaye deux fois. waaw Balla Gaye ñëw daanaan Modou Lo Eumeu war a jël revanche am ci Modou boole ko ak nekk roi des arènes Pikine war a gémb ko. waaw xam nga allé boo gis dafa am retour. xale boo gis rek dafa am retour te missile boo gis am na anti missile am déet missile boo gis rek am na anti missile comme dañu faa jaaroon moo am nu mu demee ah ku ndóobin rey samaam boo séenee lu ñuul daw mën naa am comme clé yi bari na yaakaar naa ne bu nu dikkee xëy na yeneen basin dina feeñ ñu bokkul ak yooyo waaw mais bu ci kanamee nag dina am lu ma waxaat ak yéen. dañuy dafa yab waa Pikine. waaw euh, nañu seet ñi mu ci daan seetal ñi mu ci daan xam nga loolu ay wax la waaye xoolal ñan lañ fi daan Modou Lo kan la daan Pikine ba tax mu war a war a mën a yab waa Pikine lamb nag daan ak daanu rek ñoo ci nekk. waaye yaakaar naa ni daal euh, wax bi daal jaru ko parce que yëf yi ñëw na ba pare. booy ña nga fi damay ñaan ci yàlla ak yéen a demee sëñ Babacar si yàlla nañu yàlla may ba ñu àggal incha allah. war a bëri koo xamante ni moo ko jiitu ci làmb. aywa ah, ñun. yéen ñii entraîneur xam nga ne bis jaaxaluñu ah fu Papa Diop nekk amoon seen nekk fa grand Zeyden Ida Fall grand Papa Fall dimbali ay technicien bi ki nekk fi ay sama Diagne ah benn bis jaaxaluñu jaaxaluñu. mais combat bi bés bi bés jaaxalu leen mais combat bi dafa wuteeg combat yi booy ñaata daan am. bii moo si gën a yomb rek si kàttanu yàlla ak yonent mais fam foo ko teg waaw. la Dégueur yokku na poids. ko teg si barke Abdou li ma la wax nii si barke Abdou Khadir Dieng laa ko teg barke Cheikh Ahmad Fall. xam ngeen fu mu leen mën a yóbbu combat bu baax moo tax ñu jël ko looloo tax ñu jël ko te ñu ngi ñaan yàlla si kàttan si barke Abdou Khadre Diéré barke Cheikh na Sassar mu yàlla may ñu dem te incha allah yàlla dañu may dara si barke El Hadj Malick tamit. en tant que ancien lutteur lan nga digal ko ñu euh, ñu gis ni sa adversaire Lac de Guiers waaw ñu gis ni Lac de Guiers yokku may ma waay may ma may ma ñu gis ni Lac de yokku na poids am que jaaxu leen wala entraîné ngeen. poids gi mu jël. waaw bu nekkoon 150 kilos moo ñu arrangé. moo leen arrangé ñu gis ni la jege neexut a yëngal. di ngeen ko song dama ne lu 150 kilos. waaw moo ñu arrangé. 150 moo ñu arrangé lu mu gën diis. moo ñu gën a arrangé. pare ngeen sur tous les plans.